kàddu dégg nañ ko lu a ci gémminu Mary Teuw Niane moom fi nekkoon di candidat mi nga xamante ni nag parrainage am dañ ko daal di dàq. traitement de leur parrainage. premier problème de ce système de parrainage. parrainage citoyen. boobu le système nag mu mel ni candidat yu bëri dañ ko daal di naqarlu bu ñu sukkandikoo ci professeur Mary Teuw Niane conseil constitutionnel ci lim bi mu fësal daanaka génne na ci fukki xaatim ak ñett ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre ñu daal di fa yóbbu cinquante et un mille cent soixante-sept juróomi fan daal di ciy topp fukki parrain ak ñett daal di ciy jóge. amul kenn ku la mën a wax fichier bi gars yi utiliser conseil constitutionnel fichier at bii la wala at bee la fichier bu ñu dabba daaxe la wala bu ñu dabba daaxewul la parce que nanguwuñu woon nit ñi lan la ñuy jëfandikoo. ba léegi nag génnewul ci xelam ni mën nañ soppi li nga xamante ne moom moo di clé USB wam muy ñaan rek yoon eh, daal di ci àddu nit ñi nga xamante nag ñoom ñoo di yeneen candidat yi nga xamante nag daal di nañ dugal ay recours. ci beneen état bi ñu gor ñeneen ba xam nga lan mooy des. ñi nga xam ni suñu candidat yi du yàqal dara ki nga xam ni nguur gi moom la soxla mu falu. Euh, fukki fan moo daal di des ñi nga xamante nag ñoom ñoo di conseil constitutionnel euh, daal di fësal candidat yi nga xamante nag dinañ bokk ci jongante bi boobu boobule conseil nag euh, daanaka liggéey bu bëri moo ngi koy xaar ñi fare ci kujje politique bi nag lenn rek la ñu yaakaar moo di seeni i yi nga xamante nag dañoo dàq seen i candidature ñu daal di leen ciy boolewaat